monsieur Sadio Boubacar mm-hmm. Sadio ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di fay. may fàttali suñu auditeurs yi ne tey ñoo ngi dalal mhm. kii di Boubacar Sadio doon mhm. commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle tey ji nekk ci retraite euh, monsieur le commissaire ñu démarré ak gouvernement bu yees bi nga xam ne taxawal nañ ko bu yàggul tey ji mhm. nan nga jàngatee euh, gouvernement bi tey it looy xaar ci bii lépp gouvernement. bon gouvernement bi euh, li ma jàngat mooy d'abord dem ci xaarul dara. waaw te am na loo xam ne souvent euh, bu ko bu ma ko waxee dañuy ne dama sama wax yi dafa ñagaas et cetera mais dama bëgg a wax ni am na côté boo xam ne daal mun naa wax ni président Macky Sall bi nga xam ne eh, mooy sunu président ñu wax ko jox cër mais quelquefois da ngay dem ba yaakaar sax dafa xaw a yëpp Sénégal yi quoi parce que boo toogee conseil des ministres nga ne dama tas gouvernement xam nga sax doon nga wala nga jékki-jékki sax nga def remaniement mais boo toogee nga ne dama tas gouvernement ba pare toog lu moot ñeent fan ñi ñi yaakaar ni sas boobu dafa am leneen loo xam ne bu ko juree ñi ñi dañuy gën am yaakaar gën dal ñu loo xam ne vraiment mënoon nga toog rek euh, fi nga tase gouvernement bi si ëllëg si rek nga nommé waat si ñenn ñi quoi donc vraiment population am nañ si euh, déception bu rëy rëy man daal xaaruma ci dara dara euh, gouvernement la boo xam ne gouvernement politique la c'est-à-dire am na ñoo xam ne dafa la bëggoon dugal ci biir rek mu dugal leen ci biir mu am deal boo xam ne daf ko defoon a Idrissa Seck deal boo xam ne ñi yëgoon nañ ko bu yàgg ñun ñu amoon information yi xamoon nañ ko deal bi am na bu yàgg yàgg yàgg balaa balaa sa Seck di taaxantool affaire affaire affaire Covid bi. ne loolu moo tax mu dugg ci biir sax parce que sax après mun naa ñëw sax si déclaration idi yi mm. pour génne si ay contradiction yu bëri boo leen ma ko may après. mooy lan waaw ñu dem. waaw euh, bon boo seetee euh, Idriss Seck dafa ne Covid bi moo tax te Covid bi dafa am ay njeexital yoo xam ne dafa metti si Sénégalais yi. loolu moo tax mu dem wuyu ji euh, président de la République. waaye si même si même si même jataay bi nee na ñu ngi doon waxtaan fukk weer ak juróom. mais Covid bi amagul juróom-ñetti weer. donc foofu xam nga am na contradiction mm. ça veut dire que du Covid bi Covid bi faux prétexte la ensuite bu leen bu ñu ñu fàtte ni que bi ñu defee élection yi ba pare Idrissa Seck dafa wax ni moom dootul critiquer ci euh, Macky Sall. Mm. mais ba ba léegi ba sànq musu ko critiquer aussi am na loo xam ne aussi si biir discours am bi keroog. wax na ni li tubaab di wax prescription de la part de marabout c'est-à-dire ay ndigal yoo xam ne ay sëriñ dañ ko ko jox boo leen ko ñoom délégation yi mosu dem ci euh, Touba benn sëriñ ne Macky Sall na xam ne nii tekk tekkaaral bi du dara lu dul Idrissa Seck dafa wëy ci ay ndigal ensuite euh, Idriss Seck si boppam toog na fi ñu Sénégal yi dégg ko mu ne moom kenn dootu ko euh, falati ci ay décret déedéet kooku moom bu ñu koy falati askan bi moo koy fal c'est que soit mu nekk maire soit mu nekk conseil départemental soit mu nekk député wala mu nekk président de la République hmm. mais tey jii décret moo ko nommé fi fi fi fi mu toog ni fi ak une semaine bu ko neexee parce que fi mu nekk fi dafa nekk si situation boo xam ne c'est très fragile xam nga fi mu ne fii ñii ñu weddi nañ ko ñii ñaa ngi koy ñii ñaa ngi koy euh, xarab et cetera mais Macky Sall mun na ko gën a fragiliser sax ba xam ne dootul tekkati dara parce que mun na bàyyi fii fekk euh, weer fii ak ñaari weer rek mu jëlaat même de kër génne ko bu boobaa lu muy defati aussi n'est-ce pas ci Idrissa moom ci boppam moo toog 2019 ne conseil économique social et amul njëriñ hmm. da koy tas tey jii moom mooy président conseil économique social et environnemental ba finalement sax euh, libéraux yi daal dafa mel ni wax waxe daal euh, <laughs> li tubaab bi wax seen seen ADN la bokk. waaw ñu mel nii nag fekk na ñoo war a jiite euh, sénégalais pendant juróom fukki at nag vraiment vraiment ñu war nañ jaaxale nag. du moom mhm. rek la ñu nemmeeku mu dellu si ci farewaat ak Macky gis nañu mhm. ci gouvernement bi même ay nit yi nga xam ne jàppoon nañ ci l'opposition bi lañ nekk ñu. dugg ku ci mel ni Omar Sarr. waaw ñoom Omar ñoom ñoom euh, ñëpp xamul nañu day duggu waaw parce que stratégie Macky Sall aussi moo doon gën a affaiblir rek PDS donc ci ñooñu la ko mën a jaarale rek mais ñëpp xamoon nañu Omar Sarr euh, day dugg bon et ensuite aussi euh, li tax mu duggal Omar Sarr aussi am na côté boo xam ne day xeex Cissé. ah nu mu tuddati sax Makhtar Cissé. Hmm. fële ci da waaw fële ci Dagana. donc daal ay ah, calcul politique la ay calcul askan bi taxul leen a jóg daal askan bi taxul leen a jóg. d'accord tey jii bu hmm. ma la déggee euh, wala sànq wax nga ko sax ci say biir wax. tey hmm. jii dafa mel ni dañuy jëm dajalewaat njabootu libéral ndax am nga yaakaar ni parti démocratique sénégalais bu yàggee ci tànk yi la jëm. waaw c'est que xam nga politique la nekk te wax dëgg yàlla nag parti démocratique sénégalais munuma leen munuma leen miimal dara. Mhm. waaw waaw ma leen di miimal munu wax parce que léegi-léegi ñu clignoté fii jaar nii léegi-léegi ñu clignoté fële jaar na la et mhm. vraiment bon je sais ba sànq nii daal xëy na seen position nit mën na yaakaar ni du ñu dugg waaye tam bu ñu duggoon aussi man du ma bett waaw du ma bett xam nga li am am léegi c'est-à-dire que jeu bi dafay gën a clair. Mhm. waaw léegi xam nañ ñaan ñoo bokk majorité présidentielle xam nañ ñaan ñoo bokk opposition léegi waa opposition li nga xam ne moo leen war muy Ousmane Sonko. Hmm. muy Khalifa Sall muy euh, coalition jot euh, kii nu mu tuddati jot na mooy ba Ousmane Sonko. Hmm. coalition CRD bu mbay na ñu fexe daal ba booloo ba def benn coalition boo xam ne waxuma sax pour ñu bokk dem élection. Hmm. waaye ñuy xeex li nga xam ne xëy na dina mën a tax sénégalais yi ñoom ñëpp ñu dem inscrire. képp ku inscrire nga jox sa carte képp ku aussi sa tur nekk si si liste bi ba nga xam ne léegi dañuy am élection yoo xam ne transparent démocratique et libre bu boobaa ku nekk nag bu la neex nga dem samp san dënd ko loolu buñ ko amee rek c'est une grande victoire mm-hmm. bu boobaa léegi nag vraiment ñu ñu seet ku nekk nooy doxalee. Waly ndax euh, du tas opposition bi benn wala sax mu tax nit ñi ñu gën a ñàkk yaakaar ci opposition bi. non ñi ñi bu ñu euh, yaakaar parce que xam nga damay dégg ay analyse euh, ñoo xam ne dama xamul quelque fois dama ne xanaa nguur gi moo leen di yónni quoi c'est que di bi dara neewu fi gëmuñu dara et cetera mu ñu dugal seen bopp ci loolu gis nga 2024 ñoom sénégalais opposition naam mu ngi fi parce que constitution bi moo ko reconnaître mais nañu xam ne 2024 décision bi askan bi moo ko jël du opposition moo ko jël opposition bi mën nañ leen rek ci organisation waaye ay kàngam a ngi fi vraiment bu ñu boole seen doole Ousmane Sonko Abdoul Mbaye euh, nu mu Khalifa Sall ak ñooñu je crois que vraiment dina am loo xam ne dañ ko mun a def ci biir réew mi ak waa waa waa Pape Diop waa gis-gis et nañu bokk def benn coalition rek daal. Mhm. waaw opposition yi daal nañu gëm seen bopp daal. nga tudd ko say biir wax. xalifa mhm. Sall tey jii ñu nemmeeku ko sax ne moo ngi euh, mhm. gën di yëng yëngal euh, donte moom mi ba tey candidature am euh, dara maanaam amagul mënatuñ mënaguñ koo fal. tey ndax am na avenir ci bile politique. waa tey la gën a am avenir sax c'est que finalement nit ñi gis nañu que li tax mu dugg kaso c'est que Macky moo ko ragaloon moo tax mu mu mu mu dugal ko kaso léegi génn na c'est que li ñuy wax amnistie nga xam ne amul droit civique ak euh, politique loolu amul benn solo ci Khalifa Sall ak ni ma ko xamee cest à que parce que boo raisonné noonu rek da ngay yaakaar ni politique Khalifa Sall yëpp pour boppam la pour jëmmam la alors que weesu na foofu Khalifa Sall mën ni que sa xëy na deux mille vingt quatre du a nekk candidat parce na yaakaaru mu mu am xol boo xam ne dina war a a tax mu may ko amnistie te aussi fekk ne day def amnistie na Sénégal day jàpp ni du pour Khalifa xëy na pour ñooñu ñi nga xam ne selon sàcc Sénégal bi yëpp pour mu rëccal leen mais Khalifa dafa am ñu nekk si gannaawam donc loolu lay liggéey fi mu nekk fi am mbooloo mu takku boo xam ne deux mille vingt quatre balaa deux mille vingt quatre sax mais municipal yi mu am lu mu ci jël député mu am lu mu ci am et cetera deux mille vingt quatre nag képp koo xam ne nan nga falu il faut que Khalifa jàppale la boo la jàppale wu rek doo jàll loolu mooy liggéeyam quoi. waaw donc dañu bàyyi di wax ni Khalifa amul droit civique et cetera mun na ko bañ a am kooku ça c'est pas sa préoccupation leneen moo nekk ci bopp bi. voilà dafa am keneen ki nga xam ne taxawul Ndakaaru ñu ngi ko fas yéene samp ku dul hmm. Khalifa wala. non kooku daal mun ma ci wax dara pour l'instant parce que aussi man bokkuma taxawu Sénégal <laughs> aussi loolu na leer cest dafa am lu ma xam rek ci ni nga xam ne noonu la xalifa di doxalee quoi n'est-ce pas mais man sama jëmmu bopp bokkuma taxawu Sénégal xëy na bu jëmm bu jamono jotee ba nga xam ne xëy na war naa tànn fu ma war a bokk bu boobaa vraiment publiquement dinaa ma fii laa féete fii laa féete hmm. mais sama xarit la boo xam ne ci wal li nga xam ne mu ngi koy doxalee maa ngi ko si jàppale bu baax a baax a baax te aussi fekk ne toog nañ di xelal. Mhm. wax ci immigration irrégulière bi. jamono ji gis nañu ndaw yi nu ñu euh, taxawee tem di gën di wutali géej gi donte xam nañ sax ñu ci bëri ne euh, duñ ci mucc euh, loo foog ne moo waral mbëkk mi bëri jamono ji. waaw ndëkk mooy laaj gouvernement bi rek ci wàllu xëyum xale yi. Euh, Macky Sall moo ne woon fii dina fi joxe cinq cent mille emplois je crois que lu mot cent deux cent mille sax motu ko waaw si élection yi di passé mu dig encore un million d' emplois ñëpp xamoon nañ loolu ay waxee naan rek fi mu ne fi yëf yi dafa tar hmm. donc euh, xale yi da nga leen di war di koo xam ne xëy man d' accord ma pour ñu parce que ay risque la waaw war ci def sa sa sa bakkan xaj na si et waaye nit ñi il faut que ñu aussi ñu seet jom bi nga xam ne moo nekk si xale yi ñu seet ngor bi nga xam ne moo nekk ci xale yi nga xam ne loolu eh, ak euh, kerset bi nekk ci biir xale yi loolu mënuñu ko dëkku nekk si seen biir jaboot nekk si seen biir famille ci seen papa ak seen yaay loolu moo leen di pousser doole boobu dara attanu ko kooku moom du ay ay ay ay yeddaate maanaam toog ak ñoom di leen yedd ne heure baaxul déedéet loolu il faut beneen politique boo xam ne moo mën a tax léegi ñu mën a toog am lu tuuti loo xam ne dañ ciy jàpp di suturu mais nañu xam ne que yi dafa tar mm-hmm. ndool mi dafa tar boole ndóor mu tar bi ah xaalis bi ñàkk liggéey boole ko aussi ak jom bi nekk si xale yi aussi bëgg a teral seen i waajur aussi vraiment je crois que ay ay ay ay waaye nag di yoon boobu moo gën. nga jàpp ne politique googu nan lañ ko mën a tëralee ak euh, nan lañ ko mën a defee. ni ñu ko mën a tëralee boo d' abord xam nga euh, union européenne dugal na xaalis bu bëri pour te xale yi fi mm-hmm. mais xaalis boobu yu ci bëri dañ ko détourné na leer dañ ko détourné moo tax union européenne sax xaalis bi nga xam daf ko dugal pour xale yi ñu leen defal politique war na ko def audit xoolal seetuwaat ko bu baax a baax a baax a baax a baax donc ensuite léegi comme ni ma ko waxee rek euh, xale yi dem ñu ci bëri ay lan lañu soit ñu nekk ay mool soit ñu jóge ci àll ba ci dëkku dëkku kaw yi nga xam ne dañ dem mais c'est géej bi léegi amatul jën amatul jën état moo jël licence yëpp jox ko chinois yi ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy gàddu suñu jën yi di ko yóbbu bitim réew am ah, na ñooñu aussi amuñu pexe il faut ñu dund mooy côté mool yi côté fële aussi pareil amuñu fu lu ñuy béy lépp lu ñu souffré jël nañ ko ñu jox ko vraiment euh, li ñuy wax agro industriel yi ba nga xam ne léegi béykat bi ndaw bi amul loo xam ne mun na si sukkandiku pour pour béy donc nañu changer politique ñu sa xale ni ñu leen di téye foofu si seen seen i gox si seen i dëkk et cetera leen financer financer bu ndaw am na loo xam ne buñ ko amee rek buñ ko mën buñ ci mën a suturlu rek ñoom soxlawuñu pour am ay milliards wala ay millions déedéet hmm. lu ñu mën a fajale seen i soxla waajur waaw ñu mën a ndékkee añ ak reer su ko sa yaay bëgg a ngadd buuroo nga jëndal ko ko et cetera sa yaay bëgg a ngadd buuroo munoo ko vraiment da am da ngay génn sa kër gi mm-hmm. pour seen bët bañ a jàkkaarloo donc nañu comprendre xale yi dimension psychologique bi nga xam ne moo tax ñuy génn quoi mm-hmm. commissaire am na leneen tamit beneen phénomène mm-hmm. bi ñu nemmeeku jamono ji muy mm-hmm. terrorisme bi euh, mm-hmm. gis nañu ne noppi woon na wala sax wàññeeku woon na ci jamonoy mbas bi ba muy gën a metti euh, tey ñu gis ne dafa mel ni dafa jógandoo waat nga foog ne lan moo ko waral rawatina ca Europe wala ca France waaw li ko li ko waral euh, mooy d' abord euh, am na forme façon boo xam ne noonu la ñu doon def terroriste yi euh, réew yi boole seen doole jokkaloo ba ba xeex n'est-ce bon mais forme yi nga xam ne actuellement mu ngi xaw a mu ngi xaw a France ak euh, yenn dëkk yi mais France la gën a la gën a xewe sax xam nga euh, du terrorisme boo xam ne euh, boo leen seetlu ay kenn nit a koy def waaw te souvent bu koy def lan lay jëfandikoo paaka lay jëfandikoo te ni ma ko expliqué léegi si nasaraan paaka boobu dafa am cosaan waaw dafa am cosaan xëy na temps moom ma ko dul may pour mu expliquer ko mais ki nga xam ne mu ngi jëfandikoo paaka wóor na ko ni du rëcc boo na ko tuddee genre genre xaral la quoi mais ñi koy def du ñu ay terroriste dëgg dëgg dëgg mais souvent boo seetee ay jullit loo xam ne dana am naqaru xol. Mhm. waaw waaw parce que ñu ñu ngi leen di tuutil ñu ngi seen diine ku mel mu ngi leen di mu ngi leen di saboté euh, mu ngi leen seen yonent bi am nañ droit vraiment toroxal ko et cetera am na jullit yoo xam ne Sénégal bi tey jii bu ñëwoon wax ko fi mais di nga gis ñuy jëngu ñoo xam ne da nga ko toogu moom Macron ci boppam laa wax asuma laa parce que yonent bi daf ñu toll foo xam ne kenn a fa waaw donc am na ñoo xam ne jaral na leen seen bakkan wax naa ko ci benn contribution mun ko am na jullit yoo xam ne tey nañu seen bakkan bu yàgg pour défendre yonent bi donc ñoom ñoom ñoo am discours bu bees boo xam ne moom la ñu war a hmm. pour que vraiment nit ñi jullit yi ak yeneen diine ñu boole wax naa ko sax nee naa ko Sénégal amuñu problème boobu ñëwal Sénégal ñëw woon la ñi nga xam ne catholique yi ak jullit yi noonu la ñuy doxalee ci réew mi mais moom day fàtte ni sax président de la république la ñooñu mu yilif dafa am ay julit dafa am ay catholique dafa am ay chrétien dafa am ay juif waaye mais fi mu fi dafa xaw a singale benn rek quoi waaw di leen mais ñooñu am na ñoo xam ne euh, duñ ko mën a supporter mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy ne nañ ko bàyyi ak yàlla ñeneen ñi ne nañuy ñaan yàlla toroxool et cetera mais am na ñoo xam ne loolu yëpp xeeb nañ ko mm-hmm. waaw loolu xeeb na ko donc moom war a changer politique te wax naa ko ko ne naa ko na changer politique et puis na bàyyi kaddu yu nekk ci nga xam ne mu koy teg si kaw jullit yi daal rafetul baaxul mm, waaw Boubacar Sadio commissaire euh, divisionnaire de la police de classe exceptionnelle à la retraite. jërëjëf ñoo ko